baax baax xaalis bu bari gi ma Yeah, gëntal nga ne file dama gënt ñu fay la cinquante millions yow yaa gënt ñu jox ko cinquante billaahi xaalis bu bari sax billaahi mais nag baax goreel cinquante millions moom bu ñëwee moom jox ma sama lekk bànd moom loo yow ma laal cinquante millions Komba, quinze laa la jox billaahi combat da MMA kantin Tafa Tafa dafa tiir mii. waaw écrit ba waaw waaw. donc du booy géntoo combat. Hmm. géntoo xaalis. yow hmm. da ngaa gént ma dee. non mais da ma génn àdduna xamoo noo ma koy wax. mais ba xaalis jar na ko de. 50 millions 50. boo ma mayam Sénégal sax taxul ma ma xeex Tapha Tine. ah illa léegi nag. waaye encaisse yaa ngi seen ngeen dem song Tapha Tine. Tapha Tine 50 jaral na def dem ànd sax di xeex ak gaynde yi ñu fay ma douze mille cinq cent. Hmm. moo ma gën a cinquante millions Tapha Tine. tax ci lépp. daa moom da lay dóor nga dee dekkiwaat mu dóoraat la nga deewaat nga dekkiwaat mu ngay dee ngay dekkiwaat Tapha di nga dee ñett yoon mu soog laa bàyyi. xanaa nga soog loxo Tapha loxo bi comme fondation Tapha Tine kay damaa defe ne. ñi dañ koo changé ivoirien yi téye tafaatin indil ñu rëboo xam dama ne entraîné tafaatin lañ téye indi rëboo CNG nañu xoolaat nit ñi nañ xoolaat nit ñi def rëboo mooy yuuxu nga ah! bi gis ngeen mu ah! loolu yuuxu rëboo la andi leen ñu tafaatin te delloo rëboo bi